ndax àddina ñaar yooyu la baaxoo yëngu ak dal yëngu na yëngu boo xam ne nag ak réer dafa bari doole te sëñ Saalim Mbàkke dafa waxoon ne bakkan dey saa su nekk li ëpp ci la muy def mooy day seet lu bari fitna ak i coono ak i naqar te ñàkk njariñ mu ne ca waaye romb fi nag lu bari njariñ te te jàppandi lool mu ne ay nit a ngi yuuxu di tëb di dal di wax ay laxu laxu mooy ay neen mu ne te fekk booba laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo gën a yomb loolu lépp te ëpp ko njariñ waaye nee na li lee di doon ay tiis tiis ak i nattu ak i fitna ak i ñàkk njariñ ci la bakkan gën a jëma lii yomb lool tey njariñ loolu nag moom waxi waxi suufi la mooy nga xam ne kon ku bëgg yàlla mooy bëgg nga li gën li gën a jàppandi te jege la te am njariñ waaye bakkan nag an nafsu al amaarat bi sooy moom moom bakkan moom dalay jëmale ca fa ëpp coono makkiyeel la ko ba nga jàpp ne am na njariñ boo demee ba yegg gis ne ndeke lii neen la